léegi yow kenn nekul sa xel yow kenn nekul sa xel bëggo ñu jox la kenn. amut nek sama xel. waaw mu nañ xam mu nañ amusen sa xel. revanche dal moo daan. loolu dina ne. justement en parlant de Balla Gaye est-ce que affinité bi nga amone ak mom ba tay loolu mo continuer di régner wala amna lu ci ko wala amna lu ci yokk. way dang ci gis gàq-gàq. ah kon tax ñu laaj. dañuy laajte rek. Ah. ba léegi loolu mu ngi normal ba léegi sànq lañu la mujjee déggante du ma waxantu nag ndax bu may wax dama wax yàlla tax sànq rek ñu ngi déggante maam waaw. kon gars comme ni ngeen ko déggee Lac nee na moom ak Balla Gaye amuñu benn gàkk-gàkk diggante combat ak Ama jot nga bëre ak Modou war nga xam ci moom lu bëri. waaw bu neex la ah. parce que je grand contre petit la bobu tamit parce que grand contre petit bobu c'est très normal parce que Ama Balde prouvé na ba a magam kon donc lool combat combat bu neex la mais tay bu may Ama ne conseil de grand frère la koy waxewu ma ko ay conseil ay waxu yenn kayaw kayaw yi déedéet ne liggéey contact liggéey. mystiquement ak mystiquement. les plans mi côté mystiquement nañ ko bàyyi suñu mag suñu mag suñu grand mooy Gilles Balde waaw nañ ko bàyyeek mbir moomu noonu mais leen la ci des côté entraînement bi na ko respecté bu baax a baax. waa xam nga Ama sama rakk la Ama sama rakk la tey. bu bëggee roi nit boo bëggee dara dalay jaral dara man foofu laay waxee maanaam mu liggéey bu baax pour mën a am li mu bëgg bu liggéeyal du ko am mbër bu ci liggéey dëgg nga am li nga bëgg boo ci liggéeyal doo am loo bëgg ci ci ci ci plan yëpp la muy yow ak keneen ak keneen ak keneen boo bëggee dara boo liggéeyee dëgg di nga jot li nga bëgg boo liggéeyal doo jot li nga bëgg affaire bi liggéey la liggéey moo koy maye liggéey dëgg tey bu fekkoon man maay bëri roi des arènes question bi ma wax nii ama ah, man man moom laay defal sama bopp man tamit damay liggéey liggéey yu métti pour mën a am roi des arènes foofu laay waxee loolu moo tax ma koy conseil ma ne ko ne liggéey liggéey bu métti pour mën a jot li nga xamante ne moom la bëgg ci Modou Lo mais bu liggéeyul du ko mën a jot loolu yàlla du seetaan coono gi sax mais yàlla coono lay fay.